Sénégal, Tanzanie, réaction à chaud. D'abord, félicitations au Lyon. Lyon, Amgen Ndam, 2 buts à 0, c'est l'essentiel. Mais le match, c'est ce que nous avons dit. li mu raté ci occasion fa bëri trop Sénégal bu bëggee jël coupe d'Afrique il faut que ñuy dugal suñuy occasion de but surtout bu muy premier mi-temps occasion bu muy am mu ne day enveloppé bal da ngay concentré wu nga dugal bal bal boobu da nga ko war a dugal gis nañu daal ne ils ont joué d'une manière impeccable. Kalidou Koulibaly pour moi l'homme du match wax dëgg ndax vraiment relance mu def relance longue maîtrise du défense il a fait un match super Savali, wax dëgg dommage que Sané gagne mais Cheikh Kouyaté dugg papa Aliou Ndiaye mon joueur il ne m'a pas dessus. xoolal bal de but bi mu jox Mbaye Niang premier mi-temps mais en tout cas Ismaël Sarr il a fait un gros match mais Ismaël, le premier mi-temps bi a mu balles, téye il faut que je gaaw mais il a fait un gros gros match Keita Baldé Dougal, na mais vraiment football bi des Il a doon un grand am impact Ça Sadio Mané bu de fii dina Dougal ba day Dougal ba c'est sûr Crépé Le premier mi-temps dafa xaw suul mais deuxième mi-temps sa présence ba prendre moo dougal deuxième but vraiment dans l'ensemble ils ont bien joué wax mais nag Aliou Cissé équipe bi nii rek la ñu bëgg gis nga ni ñu doon pressé yi ci kaw il faut ngeen di pour ngeen jël équipe euh, coupe euh, d'Afrique bi dina métti trop. mais nag au moins football la football bi rafet na vraiment ni ñuy récupérer bal bi pression bi c' est très impressionnant vraiment man je suis fier kàcce ngaalam ñun lii rek lañ leen laaj joxe leen bu ñu leen gagné ñu xam ne gagné ngeen jaajëf parce que nag équipe bi waroon nañ ko mun dóor 4 parce que xamuloo ndax. Algérie, vous avez 4 locaux d'eau. Comme le Kenya, vous avez 4 locaux d'eau. Mais dans l'ensemble, c'était un premier match. Si nous avons un tout dit.